salaamaaleykum mbokk yi seetaan leeral TV leeral point net nuyu nañ leen bu baax di leen ziar fii nag bu ngeen gisee ñu toog fii xam ngeen ni sori nañ Dakar lool ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy Maya Maya nekkee ci région bu Fatick bu ñu ne Maya nag xel dafay dem ci ki nga xamante ni moom mooy aji Sarr Adji Sarr ñëpp xam ne moom moo euh, def plainte ngir ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko jàpp ne moom moo ko doon sàkku waaye ak menace de mort coow yu bari jug jug ci nag ñu bari di ci wax audio yu bari di génn vidéo yu bari di génn tey Leral TV ànd ak équipe ñëw ci biir Maya ngir mën a jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dëgg-dëgg waa kër Adji Sarr ñu jàkkaarloo ñi nga xamante ne ñoom ñooy dëgg-dëgg ay waajuru Adji Sarr fas yéene waxtaan ak ñoom seq ak ñoom waxtaan kan mooy Adji Sarr dëgg-dëgg lan lañ xam ci moom. problème bi nga xamante ni moom moo ko moo dox ci digganteem ak Ousmane Sonko ñu ci xam dañuy ñëw dugg ci dëkk bi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kër aji saar da ngeen ñuy topp ñu ànd ak yéen incha allahu rabbi jaa ngeen jëf. ma koy téye booba ñaari at la am yaayam mu far jox si ma ko maa ngi ko téye ma joxe ko njàng njàng mi nag ba maa ko joxee mu paase maya mu dem jinda waaye jinda boobu mu dem xamul xamul xuloo xamul dara loo ko wax sax noppi aji nit ku tey la te baa ak ni ma ko yare ni ma yare suma doom yi laa ko yare waaw waaye nag lu am rek yàlla la yàlla mako ko doon waaye aji bi dem booba def maa taagu dàqu ma ko def maa taagu ne damay wakaas man tam ma bàyyi ko ko kaasam boobu mu dem bu mu demee ci la ma indi ne fii laay jàngee ma ne ko waa baax na bu nekkee fii nga jàngee ci sa baax na waaye waxatuma ci dara ñuy déggante déggante ba déggatuma ko ba mu dogee ci li laa déggatul man tam ma defe ne lii xale yi rek di def waaye aji magul aji ndaw la bu duggee ci li xanaa yàlla moo ko def waaye yarewuma ko bu muy dem ci yaayam waxuma ko mu dugg feneen def ko fa déedéet ma ko wax ne demal rek waaye bu la bu lii amee ah, nga xam ne yàlla rek moo ko def. kon yow génnewuloo ko moom moo la ñëw tàggu ne la dafay def. wallaahi ak waxtu bi génnewuma ko mu wax ne damay dem ci suma yaay ma ne ko demal booba sax xamul yaayam man mii ak ndeyam mii ko jur Pula Juuf moo ko moo xam waaye bi ma koy jox sax booba ndaw waaw. Mm-hmm. yaayam bi ko jur dégg nañ dafa génn àdduna. dafa génn àdduna yàgg na de waaw yàgg na kay yàgg na. mu dem seeti. boobu yaayam bu yaayam bu ndaw la. boobu kooku mooy yaayam bu mag. Mm. yaayam bu mag la. dafa wax ne bugg na fi ñëw waaye ñemeñul géej gi looloo tax man itam mun maa dem fenn bi yaayam gaañoo suma xale yee dem seen dëkk foofu suma tànk yi ñooy oom yi metti mun maa dem fenn waaw. kon li yaayam gaañu moo tax yow nga yar ko. déedéet booba gaañu ah, boobu gaañoogul. dërëm jotu ko bi muy dee daal xan booba fekk na ma yor aji bu yàgg hmm. <laughs> léegi bi nga déggee bi ngeen déggee ni lii dal na ci koom boobu loolu nan la la def. man ma mun na na dee koroog ci guddi sax ma dee billaahi dañ ma koo wax may xom ci lal bi suma doom bu góor ba la nekk jëfir moom ma ko wax waaye li ma wax ne aji dafa defal foot ma ko la ay la yow waxuma jaam noonu la bàyyee te te dal di fanaana jooy ba borsat ma laxay ne aji bu mu demee ba léegi su ma rongoñ yow na déedéet dama lay nax aji dama ko yërëm te mu buggoon ma ma bugga ko ma yar ko yar bu baax xanaa fii mu génn mu indi ma beneen lii waaye ni ma ko yare noonu la demee dàquma ko waaw waaw loolu mu am loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy wax euh, séeréer mu am nu ñuy yaree seen doom Euh, am ay ay jikko yoo xam ne def nañ ko ci moom tey boo déggee ñu ni diw ci ci famille bi la bokk sàkku nañ ko violé nañ ko loolu lu muy def askanu séeréer. askanu ah xanaa baal ko askanu séeréer kañ suñ ko waxee mu nekkee ki ko yar bu nekkee ci askan wi ñun ñun yàq bu yàq bu rëy lañu baax waaye aji fu mu nekkee itam mu nekk maamam ñooñu yàq bu rëy lañu demam bi nag xanaa ci la indi jikko bi daal waaye génnewu ko loolu muy dem fii daal def ma tàggu ma ñaanal ko mu dem école gi ubbi mu dellusiwaat tàggu ma ma ci suma yaay lay jànge ma ne ko bu nekkee loolu demal loolu yàlla baax na mu ne ma wóccuma la de damay jàng suma amee métier amuñ ci jëriñu ma ne ko waaw loolu yàlla baax kon daal mën nañ jàpp ne yar nga ko yar du baax def nga ci moom diine. def naa ca yar bu baax xam na mag xam na ndaw dafa baax ba baaxam ëpp bu boo ko bu solee dara sax boo ko waxee ne rafet na mu ne dinaa la ko may xamul xeex xamul xuloo loolu la demee loolu daal aji loolu la yar naa ko yar bu mot sëkk yoon ko yoonu diina ci loolu rek lañu waaw. lan ngay wax euh, Sénégal. ak ñiy seetaan télé bi ak ñiy déglu problème bi yëpp. ñiy déglu problème bi ñiy ma ñi may maasawu ñooñu maa ngi leen di waaye dañu am ñoo xam ne dañu wax wax bu ñaaw daal. te loolu nekkul yaraw ma ko ne te demewul noonu. loolu rek laa leen di mun a wax waaye ñu ma saqal aji daal maa ngi leen di gërëm ak yéen ñiy dox ci gaal yi voilà mbokk yi seetaan ñu ngi ak keneen koo xamante ni mbokk la ci Adji saar soxna si tur bi ak sant bi. Sali Thior. Sali yow lan nga ci Adji Sarr. Adji daal xawma ci moom dara lu dul njub bi mu nekkee fi xale bi tey bi noonu muy màgg bay dem njub lañu xam ci moom xamuñ ci moom ay problème bi noonu muy génn dëkk bi bam génnee dëkk bi yëpp kenn xamul déggal ko dara. ci affaire ay problème ñu ngi koy door a dégg nii ci problème yi. yow lanam nga. bàjjenam la li bi wax daal mooy dëgg ku ngeen mun a laaj fii itam loolu lan leen di wax xam ma ci moom dara moom problème xaw ma ko ci moom mbon itam xaw ma ko ci moom loolu nag laa ci mun a wax nag. bi ngeen déggee problème bi lu leen def. ah jaaxle rek dañu jaaxle ndax loolu mosuñ koo dégg ci moom moo tax ñu jaaxle. guddi sax kenn duy nelaw ndax pour problème leer problème yooyu waaw loolu la ñu xam ci moom ñun dañu jaaxle ci loolu. bi ngeen déggee am ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi yàq lu bon Adji Sarr ne euh, day taxawaalu dafay nit ku bon la yéen en tant que ay mbokkam ay njabootam te ñooñu di ne ay mbokkam la yéen loolu lu leen def metti na leen. ah metti ne metti na kañ amul ku mu mettiwul ku ko dégg ci wax ñu boñ loolu amul ku ku mu mettiwul ñëpp la metti waaw ñëpp daal moom la metti mbon xamaluma ko jub moom laa ko xamal waaw moom laa ko xamal daal wante lii ñuy wax daal mosuma ko koo xamal maa ngi koy door a dégg nii man mii sax gisuma ko bi muy tàggu meer bi man mii sax gisuma ko dama koo seen muy dem waaw mu yëkkati ma loxo ne egg egg siwuma ci seen kër wante maa ngi nii di dem ma ne ko waaw nga egg ak